sama gars yi nag euh, su ngeen euh, bàyyi xel que ni euh, Marlo nekk na nit boo xamante ne dafa mën négliger ay mbir te su ngeen sukkandikoo si loolu no gis nañ ni am na benn koo xamante ne si famille bi la nekk te ko noonu impossible kii di Marlo mu daal di koy contrôler mën nañu nag lu ko neex lay def si kër gi te Marlo di ko bàyyi si lu nekkee moo tax nag pour le l'instant Marlo nag war naa jug si loolu noonu te mu doon góor bi tax ñu ne góor yaakaar naa bis bu jugoon tàkk si ko soxna Bator soxna Boto dina xam ni carrément góor waxaan naa moom mais mun nañ ni Marlo heure bu jugé wax rek soxna boto jug wax momu daldi wacc té yaakar lo gor wo war ko négliger mom nak euh, marlo warna tak tuwem euh, gëna am fit gëna am jom ci ki di soxna bator mu daldi koy euh, wax nak li nga xamantene mo nek carrément ci xolam té mu bay li nga xamantene mom la nek di négliger da ngay xol su yëkëté kaddum rek soxna bato yëkëti kaddu mom mu daldi waccat té tamit mën nañ mu tak juk té yaakar lo non gor du ko def marlo da wara assumer ay responsabilité bu jaré sam mu di soxna bator pour mu dégg li li nga xamante ne moom la koy wax war na koo def ndax yaakaar naa mbéj munta a gaañ kenn te loolu munu see porter plainte kenn yaakaar naa nag soxna Batoor nag lu ko Marlo musta dóor moo tax nag euh, mu daal di koy yeb te euh, jigéen yëpp mun nañ ni euh, pareil mais nag soxna Batoor cas spécial moom nag mun nañ ni amul morom si jigéen ñi ndax nekk na koo xamante ne mun nañ ni elle n'a pas de cœur loolu nag euh, war nañ koo bàyyi xel te Marlo jël ay yu mat di gérer këram ngi ko war a gérer te mu contrôler li nga xamante ne moo nekk soxna mi ndax soxna mi ñu bëri yem nañ ko si lu ko dalee comme euh, kii di Alima Fanta sax mun nañ ni euh, xaw na koo yeb tuuti Mariétou rek moo ko jox cër te cër boobu noonu tamit delloo na ko Mariétou mun nañ ni Mariétou moom mooy parfaite li nga xam ne moo nekk femme jaa ngi jëf sama gaay